aussi yu ñu ñu tàmbalee gis maanaam les cinq dernières années rapport yi nga xam ne euh, génnoon na te xëy na ñu tegoon ci loxo wala ñu bañoon ko déclassifier euh, ba askan wi jot ci fan yi moom lii lii génn euh, doy na waar di tuumaal ñu bëree bëri ñoo xam ne ci yéen yéen yéen yéen lañ bokk. laam laam méthode. déjà na na ko gisee mais bu weesoo aussi le contenu li nga xam ne ñu ngi ciy ñu ngi ciy indi ay ay ay ñu ñu épinglé. xam nga Mamadou Awa. nekk om d'état dafa jafe euh, état dafa am nuñ koy yore euh, maanaam ku nekk ci nguur bu boo déggee ñi la homme d'état mu ngi mel na docteur sëriñ bu fekkente ne képp ku ñu gisanteel képp ku ñu waxtaanal ñi tekk ci mbedd mi dana ñaaw trop donc man li ma jàpp mooy état dafa am wa dafa war a am secret d'état mm-hmm. li ci des nag tuumaal ak coow. réew mi lan ngay réew mi réew yoon la. sa à am na yoo xam ne. moom rapport yi deful euh, dara ci mbedd mi xam nga rapport rapport dafa am dafa am loo xam ne sénégal yi war nañ ko jot. loolu ku nekk xam na ko. Mhm. ne lii ci béréb nangam am na fa lii ak lii lii ak lii ñu ngi koy xool mais loo xam ne kenn topp ko boo ne Mamadou Awa Ndiaye moo def lii boo ko jëlee tuumal ko wili pande ko te kooku am na njaboot. am na mhm. kër am na ay doom am na ay mbokk. dema ne loolu du du du nekkul lu maanaam daal man ci doxalu ni état rafetlu wu ma ko donc nit réew yoon lañ nekk képp koo xam ne li nga def teguwul ci yoon nañ ko jubbanti teg ko ci yoon bu dee alal jàmbur nga jël nga delloo ko. te benn coow ci am mais est-ce que président Sall moo ko waroon a leeral balaa muy def. nga parce que euh, xam ne depuis. deux mille mais mais mais mais ñun bi ñu fi nekkee génne nañ fi ay rapport wax. Ah, ci ci ci ci ci sous président. léegi nag loolu kay boobu Macky Sall mu ngi fi génn nañu ay rapport ne euh, euh, direction nangam ministère nangam. nangam nangam et voilà donc mais bu amul suite ñoom nañ suivre bu fekkente ne dafa am ñoom laa li ñuy def mooy le tribunal de l'opinion maanaam askan wi. def def seen bopp benn idée. ci nit ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo doon diriger. ma ne xam nga man daal li ma ci jàpp mooy que man euh, nu muy doxee ak ni ñuy wili pande gor yi. Mhm. rafetluwuma ko képp nag koo xam ne da nga jël alal jàmbur te waroo ko woon jël. man d'accord naa nga ñu wa ñu nga delloo ko fi nga ko jëlee woon. Mhm. mais nag doxalin bi nit ay ci réew mi lañ bokk te nag nit du fi nekk ba faw da ngay tey si yow la ëllëg sa morom la donc lépp lu ñuy doxal lépp lu ñuy doxe nañ ci sooraale ëllëg te it sooraale ne Sénégal ñëpp benn nit lañ benn bopp lañ kenn mënu ko xar mhm. di wili pande di wax ci média bi di ay ñoon na ñoo xam ne. du ñu procureur du ñu président tribunal du ñu dara toog attaqué benn nit di ko di génne naan def na lii def na lii loolu yenuwul maanaa état du doxee noonu réew du doxee noonu yow réew mi dafa am yoon bu fekkente ne nit def na loo xam ne waru ko def na jëflante ak yoon yoon jaarale ko yoon ba mu delloo li nga xam ne def koo jël te waru ko jël. Mhm. mais nag ay boo yoo xam ne tekkiwuñu dara jël ay kilifa yu mag di leen wilipande di leen wax lu leen neex. man ànduma ci loolu doxalin boobu aussi rafetlu wu ma ko. Mhm. Euh, ci seen régime am na lu ñu leen doon euh, joxoñee baaraam lu bëree bëri mooy que ne euh, enrichissement illicite ci ngeen ñi. Euh, ba tax ñu tegoon fii euh, déclaration de patrimoine booy falu nga wax li nga am boo wàccee tamit nga wax li nga am ñoom bi ñu faloog léegi euh, ñu ngi leen ci xaar le président Diomaye en tant que candidat déclaré woon na patrimoine am uh-huh. am ci suuf su bëree bëri am ci kër goo xam ne waxul woon xëy na ñaata la parce que nee na jot bi may mayewu ko woon tey ji bi mu faloog léegi ñi ngi koy xaar ndax yéen da nga leen di xaar ci acte mel noonu pour rassurer les les sénégalais joxe l'exemple avant ñuy dem ci xam nga lépp dama ne la xam nga nee naa la ñoom mënuñ fi liggéey loo xam ne tibbee wuñ ko ci plan Sénégal émergent waaye structure yi nga xam ne ñoom ñoo war a saytu loolu yépp président Macky def leen jëmmal taxawal leen fii doole leen avant muy dem yokk seen doole ak ni ñu mën a liggéeyee kon lépp lu ñu fi def président Macky moo ko teg maanaam da ngay ñëw rek doxal. mais président teg na ko mais ñu bëri na suivre. non mais suivre xam nga lu ci def lu ci lu ci des mooy doxal léegi président Macky tegal na leen ay na ñu doxal te wàññi coow bi ci wàññi wilipande réew mi réew yoon la ku ñu war a convoqué nañ la convoqué ku war a fay na fay mu jeex mais ñu war a bañ nekk fii rek di ngawti ngawti di coow loo xam ne ba amul geen amul bopp fu ñu leen di xaaree du ci ay rapport wala ci ay suuf wala ci ay terrain déedéet luy doxal réew mi du rapport of nag du rapport euh, cour de compte liy doxal réew mi du nangu terrain wala 4 hectares lii doxal réew mi mooy wàññi dund gu cher gi ñuy wax gi ñuy wax ne Macky Sall mënoon na ko wàññi wàññiwu ko mhm. li koy doxal mooy jox ndaw ñi nga xam ne nee nañ ñoom ñoo yàkk seen diggante ak Macky Sall ba ñu amatuñu woon yaakaar ñu ama am yaakaar ci ñoom ba jox leen réew mi ñu jox ñooñu ay xëy ubbi euh, projet yi dimbale béykat yi dimbale sàmmkat yi foofu lañ leen di xaare du ci ay suuf ay rapport ak loolu avant loolu avant loolu li ñëpp bokk bu ko benn tegee loxo aussi jàll ma ne la loolu laa la li ñëpp bokk li ñëpp bokk loolu laa la wax li hmm. ñëpp bokk boo ko jëlee nañ la woo nga delloo si ko je suis totalement d'accord hmm. lépp lu ñëpp bokk ku ko jël nañ la woo nga delloosi ko mais dama naa la fi ñu leen di xaare du ci du ci ay ay ay ay hectare mbaa cour de compte mbaa OFNAC ak leen du loolu mooy doxal réew donc loolu defa defa bokk ci ponk yu doxal réew mais tey est-ce que tey bu bu ñuy bi ñuy wooyee nit mu delloo si dana tax kilo ceeb bi wàññeeku. Hmm. dana tax euh, euh, euh, bu ñu nangoo sa terrain wala sa fukki terrain dana tax yow nga am kër foo fu ñu leen di xaare du foofu loolu am na ay secteurs yu koy doxal am nañu am nañu ay yoon am nañ justice. Hmm. am nañu administration ñooñu seen liggéey nañ leen bàyyi ñu def seen liggéey ñoom lu ñu war a liggéey mooy lu nga xam ne moo war a jàppale askan wi pour mu dem ci kanam. man loolu laa jàpp euh, nit ñi li ñuy laaj mooy yéen fan fan ngeen nekkoon en fait bi gars yi di def la nga sudul noonu. xew Thiès dafa dafa doy waar. contexte bi oh. sax ko littoral bi moom xëy na peut-être voilà mais li xew Thiès on nous parle de personnalité yu am ay yu bëri bëri loo xam ne ñu bëri mën nañ ci profité fu fu ngeen nekkoon ba bàyyi loolu yëpp. mu jàll xam nga man man dama jàpp ne lépp lu xew Thiès ak feneen gis nga état mhm. man dama jàpp ne xam nga kenn du xëy am hectare te mayuñ la ko état bu defee lotissement mhm. ndax daf koy def euh, euh, ñi defa defal la délibération dafa am ay services yu ko sekk mhm. te ministère de finance jiite ko waaye dafa am service cadastre mu am euh, l'urbanisme am na fooy jaar mu am aussi domaine mhm. ndax commission yooyu ñooy toog waxtaan ba mu mun la di délibérer yow nga am sa baay la nga am sa titre foncé mhm. donc du benn nit mooy jóg naan la jox naa la terrain wala jox naa la hectare. kon service yooyu ñi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo loolu ñu ngi fii tukki wuñu demuñu fenn ñooñu nañ leen laaj nañ leen eh, eh, eh, jébbal mbir yi ñu toppatoo koo xam ne jot na ci loo xam ne waru ko jot nga delloo si nga ndànk du foofu mooy wax ji non fu ñu nekkoon mais ñu administration ba yoon man man gëw ma ne parce que gisuma ba tey kenn woowu ma ne ma euh, euh, euh, quatre hectares yi Mamadou Awa Ndiaye moo ko moom ba ma teg ci firnde gis kayit bi la firndeel ne jox nañ la ko déggal ko ci ay wax rek laa ko déggal donc li ma dégg ci wax du ma ci du ma ci war a no xam nga man bu ne yow mi yow mi ko moom xam naa président bi loolu c'est assez grave président bi waxuma ne ma Mamadou Awa Ndiaye am na fa 4 hectares wala diw am na fa 4 hectares mais dana diw xam nga xam naa ah ban diw la ko wax tuddul turam. mais loolu laa wax li bëgg a mooy teg na dara ci euh, ma ne lépp lu ñu mën a teg dara ci loxoom. Mhm. mu ngi noonu li tegu ci loxoom fekkoon na ay moromam ñi am li ñuy teg ci seen loxo lu bari. bu ko munee rectifier bu ko munee jël lu mu ci mën a jël te jaarul ci yoon loolu lañ soxla. bu fekkente ne nag ay wax la rek ak ay teg nit ay tuumal man demal ne la loolu duma ci sori. Mhm. duma ci wax. li ma gëm ba jàpp nit bu jëlee nel diw dafa jël 4 hectares te moomu ko delloo naa ko benn kër la ci waroon am jox naa ko benn kër.